naataal fukk ak juróom-ñett noonu Jésus yaakaaroon nañu ne rey nañu ko wante loolu amul bi mu faatoo ci bant bi ñu ko daajoon ab xaritam moo jël néewam yóbbu ko denc ko ci xabrum ñu daldi tëj buntu xabru ba ak aw doj ba mu amee ñetti fan ay jigéen jóg suba teel dem ci xabru ba ngir waajal néew bi comme ni ñu ko baaxee di def ñu am mbetteel bu rëy ndax fekk nañu buntu bàmmeel ba tëju te gisu tuñu néewub Jésus ba ñu gën a waaru bi ñu gisee ñaari malaaka yu leen di xamal ni Jésus deewul mu ngi dund ñaari malaaka yooyu xamal nañu leen ni Jésus dekki na